Euh, droit yi daal moom bëgg nañ ñu respecté ko lool lool lool beneen aspect bi mooy ñu encadrer également la migration ndax dañu jàpp ne fi jamono toll fi àdduna toll dem beeg dikk bi dañ ko war a gën a yombal ndax booy xool euh, réew yi nga xam ne moom la ñuy wax réewu taax nga xam ne ñoo yor koom bi tey fi tey am nañ koom mais dañoo commencé màgget ñun ñi nag suñu dëkk yi nga xam ne nii xëy na peut-être euh, ci la ñu ne booy xool koom bi des na te itam euh, ndaw yi liggéeyuñu te itam ñi ci ëpp ay ndaw lañu kon gannaaw fii buñ fi toogee toog fi tekki fi dina jafe te fële soxla nañu ndaw yooyu pour ñu dem fa su ko defee ñu xool naka la ñuy mën a encadrer mbir mi ba nga xam ne kiy jóge fii di dem doo sonn soo yeggee foofu itam doo am ji benn jafe-jafe ngir mën fa toog liggéey fa daan fa sa doole euh, jàppale sa njaboot. recommandation yi daal bi ci ëpp solo mooy ne état bi fexe ba. Euh, euh, droit yi maanaam àq beeg yelleefu doomu aadama yi ñu respecté ko bu ko defee kii nga xam ne ni day dem te dem boobu doon euh, àq ci moom su ko defee ñu yombalal ko ko fii fële muy dem itam ñu yombalal ko ko bu ko defee nekkinam dina am solo su ko defee ñoom dinañ ci gagné ñun itam dinañ ci gagné incha allahu rabbi rapport bi tourné na autour de deux cent deux cent quarante pages te deux cent quarante pages yooyu boo koy xool am na Euh, quatorze contributions yi nga xam ne ay experts ñoo ko def quatorze contributions yi nag pour pour yombalal lecture bi dañ ko tënk ci six axes majeurs maanaam juróom-benn ponk boo ko defee ñu bind ko itam ci nasaraan bu yemamaay su ko defee ki koy mën a lire mën cee gis boppam incha allah rabbi